drôle mais est-ce que demain ça ne va pas nous rattraper. beneen affaire aussi am na ndax euh, déglu naa ko ci ay débat mais tamit conseil constitutionnel bi ñu tàgg tey nañu jàpp ni moom ëllëg ak lu mën a xew bis bu ne résultat yi nii la na ñëpp mànkoo nangul ko moom it ni moom mi doon nangu ni candidat yi ñii la moom mi doon nangu ñu koy kañ tey ay résultat am bu ko joxee lii la soxna Mimi Touré dama relever ñaar ci ay mbiram mu introsé wu sur le ministre de l'intérieur mhm. qui va organiser les élections beneen bi aussi mu wax ni élection yi mu gis élection à premier tour la ñaari jàngat yooyu ñaari point yooyu mu teg ban jàngat nga ci def non avant may ñëw ci loolu il faut nag relativiser un peu mhm. vision bi ñu am ci conseil constitutionnel euh, Euh, suñuy institution am na naxas bu ñu naxasoon te il faut le reconnaître justice gis nañ ni mu doon doxee at yi yëpp ba sénégalais yi sax kàddu gi ñu doon gën a jibal mooy dafa am justice kumba am ndey ak kumba amul ndey. dafa jeng dafa jeng loolu moom yàgg nañ ko seetlu. conseil constitutionnel bii tey ñuy kañ ndax décision yii mu jël conseil constitutionnel boobu moo invalidé woon. ci législative yi ñu génn liste nationale bu Yewwi Askan Wi indi fii une situation boo xam ni aussi e inédit c'est-à-dire la majorité présente liste nationale amuñu liste suppléant euh, kuréel gi gënoon rëy ci kujje gi am list suppléant amuñu liste nationale ça c'était inédit te yàggul dara te yàggul dara ah donc bu ñu jàpp ni tey rek parce que souvent les sénégalais sont assez émotifs. Mhm. donc li xew tey rek la ñuy xool ni non conseil constitutionnel gàcce ngaalaama c'est bien et cetera mais il n'y a pas très longtemps on a vu quand même le conseil constitutionnel prendre des décisions controversées waaye bii yoon taxawaay bii dafa mënta woon ñàkk neenal gi ñu bëggoon neenal élection yi le 25 février neenal ko tax ba noppi. Mhm. yóbbu ko le 15 décembre kooku conseil constitutionnel mënu ko woon noppiwaale il fallait que mu jël décision kase ko ndax ñaar benn article 27 bu constitution bi li mu wax dafa leer ci ñaari mandat mu leer nañ beneen mieux l' article 103 moo consacré intangibilité de la forme républicaine du pays du nombre de mandats et de leur durée d'accord donc loolu kenn mënu ko xët donc conseil constitutionnel mënu woon lu dul jël décision bi mu jël d'accord Momar kon ñu jël président Boubacar kamara moom it mi ngi nekk en ligne président ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay fay euh, di la delloo ziar. ah président tey euh, bokk na ci réew mi euh, nouvelle yu nga xamante ni jot nañ ko di fàttali ni yow candidat nga bokk ci 19 candidats yi nga xamante ni ñi ngi dàggaan baatu réew mi. ngir élection présidentielle gi jàpp nañu le 24 le 31 waaye tamit ci wàllu loi d'amnistie bi ñu bëggoon rek jàngat bi nga xamante ni am nga ko ak yëg-yëg bi. Euh, maa ngi lay sant bu baax xaw ma plateau bi ñu fa nekk mais maa ngi leen di nuyu bu baax. di leen Momar ñu ngi lay fay. Momar Diongo ngi fi Abdoulaye Mala ngi fi. waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen féliciter ci seen taxawaay ci presse bi pour euh, que xibaar yi nit ñi jot ko ñu mën ko faram-fàccee. tey nag dafa am ñetti xibaar yu jógee ci ñetti Euh, kuréel yi nga xam ne ñoo ëpp doole ci réew mi benn bi mooy kuréel bi àtte benn bi kuréel bi dogal mhm. ak kuréel bi nga xam ne bii dafay dafay voté ay loi muy assemblée nationale mhm. donc ñett yëpp am benn jeexital ci fii ñu jëm nii ah yëpp nag am na coow parce que bu ci ne rek am na ñu ci ànd ak ñu ci àndul mais loolu mooy àdduna ci wàllu assemblée nationale amnistie bi nga xam ne bii dañu bëgg a fàtte yi fi xewoon diggante deux mille vingt et un deux mille vingt quatre am na ñu am nuñ ko gisee yaakaar ne ma ànd ceeg ñoom it waroon nañu leeral yu bare balaa ñu cee yegg ci waaye loolu lu ñu mën a dabaatal la ñaareel bi mooy gouvernement bi di sudur nañu ko ah ci mu des ay fan ci élection kenn xamagul euh, jéego boobu ban jéego moo ci tegu ak lan moo ko wund loolu aussi dafay créer benn instabilité parce que ministère de l' intérieur ci gouvernement bi la ko bokk te moom moo war a organiser élection yi loolu aussi euh, am nañ ci tuuti jaaxle euh, war nañ ci leeral ñetteel bi mooy décision conseil constitutionnel bu dee information yi ñu jot yëpp euh, vérifié na benn bi mooy nanguwul li nga xam ne moom mooy jeexitalu dialogue bi date bi ñu jëloon juin wax na ne dëppoowul ak moom ni mu gisee kon dañ ko war a jël avant fin wu mandat bi toftal ci nag jël date 31 bi mu constaté ne ki ko war a jël jëru ko ci diir bi mu ko war a jëlee donc foofu lañu toll mu mu ñu noyyiwaat ci kaw nag ndax euh, loolu leeral na ni situation bi ñu doon ragal à partir du deux dootuñu ko am te dinañu dem ci élection ci anam yoo xam ne yii président bi mandat dina jeex le deux et successeur am ko éliré mu ñëw euh, passé pour service ci jàmm euh, ni ko constitution bi waxee donc dañuy sant yàlla rek di wax ne lii métti na lool waaye mën nañu yaakaar ne jeex bu dee amul leneen luñ ci lal daal je pense que mën nañu yaakaar ne démocratie sénégalaise tey am na benn pas bu am solo bu am ñun ñëpp ñu war a nag euh, jublu ci liggéey bi ñun en tant que candidat indi suñu programme expliquer ko Sénégalais yi ñu xool kan la ñuy tànn pour mu euh, présider destiné Sénégal ñu leen di sant bu baax loolu moo doon suñu jàngat ci mbiru tey. président laata ñu laa bàyyi ñu bàyyi laa suñu naataango Abdoulaye Mal. Euh, Boubacar Camara euh, yow da bokk ci candidat yi mais gis nañu avant lii di xew président dafa woote woon benn dialogue yéen 19 candidats yi ngeen bañoon dem ci dialogue boobu tey jii nii comme ni ñu koy waxee situation bi fu mu toll nii déglu nañ ci benn candidat léegi moom mu ne pare na sax pour ñu jéem waxtaan ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu campagne bi est-ce que nii pare ngeen pour dialoguer ba xool nan la mën a demee ci élection yi ba xool parce que foo xam ne dañu fay waxtaanee naka la ñuy xoolaatee liste bi nga xam ne conseil constitutionnel dëggal na ko foofu du neex a waxtaanee ensuite loo xam ne dañ ko tëgg fekkee woo yëguloo tinuloo ñu jaxase loo xam ne ñii wax dëgg yàlla kenn xamul lan la ñun ñu ne du ñu dem ñu demit du ñu leen ŋàññ parce que dañu yaakaar ne bu ñu fa demoon mun nañ am solution dem nañ ba waxtaanee solution mais solution bi euh, conseil constitutionnel dëggalu ko ñu considéré rek li conseil constitutionnel wax rek la ñuy jàpp kon nag ñun pare nañ lépp loo xam ne waxtaan la bu ñu war a def euh, pour élection yi jaar yoon ci suñu biir en tant que euh, FC 25 dinañ ko waxtaanee lu ñu ci juboo rek ñu ànd ci euh, waxtaan ci ñun bañuñu dara suñu bañ loolu li ñuy bañ rek mooy loo xam ne dafay indi ay jaxasoo kon nag loolu moom mooy suñu gis-gis ci mbir bi. président Boubacar Camara ñu sant ko gërëm ko ci disponibilité bi. ñu ngi leen di sant bu baax mhm. noonu la ñuy def it di woyal euh, waxtaan wi waaye tamit euh, yaatal ko ba tey ci ñeneen ñi nga xamante ni ñi ngi ñuy euh, teewlu fenn fu ñu ci mënti nekk moo xam Séné Sénégal waaye tamit bitim réew ndaxte bu dul dara ñoom it ci lañ bokk te bu ñu convoqué corps électoral bi diaspora bi am nañ ci ñoom it pàcc bu am solo boo xamante ni Momar dinga def jàngat ci. président Boubacar Camara li mu wax waaye ñaari tënk tamit euh, li ñu doon wax sànq ci Mimi Touré jot ko joon wax soxna Aminata Touré loolu tamit bëgg nañ nga indi ci sa jàngat ci wàll waaw soxna Mimi Touré duut na baaraam lu am solo muy ki ñuy tabb mu doon ministre de l'intérieur bu bees nekk ki nga xam ni moo war organiser élection yi. Mhm. muy nag tabbin boo xam ne ñu bëree nga koy xaar. Mhm. xool ban profil lañ ñu indil. parce que woy politique yi ak même société civile. yàgg nañu ŋàññ ñuy jël un homme politique di ko def mu nekk ministre de l'intérieur xam nga loolu juwoon na fi coow sax ci jamonoy président Ablaye Wade ba mu namee Ousmane Ngom ministre de l'intérieur ñu ne ko Ousmane Ngom ku fës la ci wàllu politique da ciy xëy di ci gont donc waratu mën a organiser ay élections. président Macky Sall ak Aly Ngouille Ndiaye. tout récemment léegi président Ablaye Wade mëjj loolu tubaab naan. couper la poire en deux mu def ko jël Ousmane Ngom feddali ko mu nekk ministre de l'intérieur waaye jël Cheikh Gueye nga xam ni ñu bari manko woon nañu ci xarañteefam ci lu jëm ci mbirum électoral opération électorale mu def ko ministre chargé des élections mbir mi réglé wu le président Macky Sall nag bi mu ñëwee tënkuwul ci loolu xam ngeen ni sax ci ginnaaw gi laaj dañ ko ko mu ni musul wax lu mel noonu Macky Sall ministre de l'intérieur warul warul kii ah. mais gis nañ aussi génnee Aly Ngouille Ndiaye. Mhm. Euh, mu indi. Euh, polémique bu rëy. mu indi polémique bu rëy. ci ay waxam nag moom. ci ay waxam dinaa ah. def le tout. dinaa def le tout loolu tamit <laughs> hmm. léegi nag diir bi nag gàtt na ba nga xam ne yaakaaruma sax ki ñuy nommé ministre de l'intérieur hmm. la ñuy njort ci loxoom dugg ba am lu mu jengal ci élection yi. man hmm. fay nekk. jàpp naa loolu. jàpp naa ni rek li nga xam ni mooy. les l' administration électorale. ñu gën cee ràññee direction générale des élections. Mm-hmm. fi mu ne li ñu tàggaleeg élection bi li ci ëpp ñoom ñoo koy def. Mm-hmm. xëy na nag dañuy tënku ci ab ndigalu ministre de l' intérieur. waaye comme ñoom soobu woon nañu ci opération yi ba toll fi fii yaakaaruma ni nit mën a ñëw weñ seen loxo wala def loo leen loo xam ne méngawul ak. Mm-hmm. li nga xam ni moo jaadu. donc ñuy rafet njort rek mais président nag dina yombal mbir yi. rafetal njort bu fekkee tànn na koo xam ni. Mhm. Euh, xawul la soobu lool ci mbirum politique. ba acteurs yi mën a am kóolute ci moom. acca ñu ànd ak euh, ba tey euh, téléphone bi salaamaaleykum. waaleykum salaam Moussa. waaw kon ñu ngeek président Lex Africa di Elimane Kane.